ni commencé faire les chroniques euh, de la musique sénégalaise euh, plus particulièrement mbalax mi nga la def ñu animateurs musique dafa wara musique dafa wara thème waye dafa wara message bu fort bo xamni ki déglu dina ci am ci jang am ci ci xam ba bu vous mën ni ah so bi ma dégg dé jangal na nañ première chronique bi nga def te ñëwaat

ne ma tuuti ma ñëw nga ne ma tuuti ma <laughs>